سفر الخير والبسر لجميع المريدين والمريدات بل لعامة المسلمين وللعالم أيضا juróomi minute ci safar déglu ko ndax nga xam kan mooy Cheikh Ahmad Bamba radiyallahu anhu 1895 tubaab yi seeni pexe ak seeni mbon jël nañ Serigne Touba dugal ci gaal gu ñaan ville de Pernambouc yóbbu Gabon maa yomba baafali ngir lan bëgg a génnee pas-pas bu wér bi nekk ci Serigne Touba ak xeex gi muy xeexal der bu ñuul ndax lañ bëggoon am nañ ko déedéet pexe yu ne def nañ ko jéem nañoo jël bakkanam ci façon bu ne dugal ci pour dugal ci kàmb tiire fetal benn bu ci ne jàllul ndax borom bi tabaraka wa taala moo weddina loolu du am mukk mbokk yi tubaab yi atte bu bon bu ñaaw la ñu atte Serigne lan mooy tuuma ji Serigne Touba nettali na ko boppam axrajtumuni naatiqiina bi annani abdul ilahi wa innani la mujaahidu li tax ngeen génne ma sama réew du dara lu dul da ngeen a wax ne man ab jaamu yàlla la boo xam ne yàlla borom bi rek laay jaamu du ma jaamu keneen waaye damay jihaad ci lan lay jihaate inni ujahidu bil ulumi wa bit tuqaa abdan qadiman wal muhayminu shahidu li may jihaatee du fetal du jaasi du yat du xeer waaye lu gën a diis loolu laay jihaatee mooy xam-xam bu wér ak ragal yàlla ak jàmm 1895 yóbbu nañ sëriñ ba 1902 gouverneur signé ñu delloo si waat sëriñ bi ci biir réew mi seen pexe eseg lañ bëggoon amul sëriñ Tuubaa del si waat ci njàmbaar ndax lam doon woote da ko bàyyi déedéet tey la ko gën a woote ndax xeex gam doon xeexal der bu ñuul da ko bàyyi déedéet tey la ko gën a xeex pas-pasam yokk imaan yokk lislaam yokk ihsaan yokk mbokk yi Serigne Touba dafa lu yéeme moo xew ci tukkeem bi mooy lan ku ñu masaanu yóbbu sa imaan wala sa islaam day manqué waaye moom dañ ko yóbbu imaan ak islaamam gën a mat ah yaa cheikh kam anta azimun 1902 ñu delloo si ko Sénégal bato bi teer Ndakaaru ak contentement ak fierté fees ci xolu senegal yëpp ñëpp ne xëlëf xëlëf ñëw ci ci ñëpp ne xëlëf ñëw ci port bi ngir teeru Cheikhul Qadim xasaay ji jolli zikru yi murid tiijaan xaadir laayeen kenn ku ci ne bég ngir kenn ku ci ne bég ngir ngañaay lu rëy li nga xam ne moom la lislaam am tubaab yi ndax bàyyi nañ ko bàyyi nañ ko diir bu ndaw mu circuler nekk ci ay soxlaam waaye teewul murid yi ak taalibe yi waaye teewul taalibe yi fenn fu ci ne waaye jóge fa ñëw bëgg a gis seexul xadim ñëw bëgg a tànq ci leer yi nga xam ne moom la jëlee ci géej kuy murid ak ñëw bëgg tànq ci leer yi nga xam ne moom la jëlee ci géej fenn fu ci ne waaye jóge fa bëgg ñëw siyaar si Ahmad Bamba mbooloo mi bari lool ci kanamam tubaab bi gën a tiit gën a jaaxle tax mu siñewaat beneen tax mu siñewaat beneen mbir mooy lan exilé waat si Ahmad Bamba waat ko réew mi bii yoon ndax ci biti fen bii yoon fan la wan yoon la jëm jël na yoonu gànnaar ci Murtani lan moo taxoon mu bëgg koo yóbbu Murtani Cheikh Ahmad ba dañ ne defa am xam-xam dañ ne defa dégg araab dañ ne sharif la bëgg nañ ko yóbbu Murtani ngir lan mu xeeb boppam ngir bu demee foofu gis ne ay surafa ñoo fi nekk ngir bu demee foofu gis ne am nañu ko ëpp xam ñu fa nekk waaye déedéet bañ demee lañ gis bu da leen a jëmmal da leen a jaaxal naar yi ñiy jébbalu ña nga xam ni ñooy borom xam-xam yaa kilifa ya fa nekk fasante kóllëre Cheikh Ahmad Bamba 1902 ba 1907 1902 ba 1907 Serigne Touba def ko Mauritanie gannaaw 1907 ñu delloo si waat Serigne Touba 1907 ba 1912 ñu delloo si waat Serigne Touba teg ko fu ñu naan Ceyeen Ceyeen Jolof mbokk yi foofut li tax tubaab bi indi fi Serigne Touba jaaxle ak mbooloo mu bari mu dar Serigne Touba moo tax waaye seen pexe du masa seen waaye seen pexe du masa sotti ñu jëlaat Serigne Touba 1912 ba bi muy génnee àddina ñu yóbbu ko Jurbel résidence surveillée muraqaba shadida nga xam ne sëriñ Touba amul liberté benn yoon ñi koy ziyaar si dañ leen natt ñeent fukki nit. gën gaa bari li muy wax taalibe yi dañ koy xam amul benn droit waxaat kenn dara te tubaab yi xamuñu ko shukran shukran ya bamba ila liqa